yi ëpp ci bureau nga xam ni suñu ay mandataire dañ fa nekk ñoom seen i mandataire ñu am na sax ay bureau yi nga xam ne dañ ko dañ ko gagné yeneen yi da leen donc bi ñu ñëwee wax loolu commission bi wax ko président bi ko tey dañoo bëgg nga may ñu ñu ubbi kees yëpp ginnaaw démb bi ñu ubbee quelque def échantillonnage gis nañ ay irrégularité may ñu comme ni ko loi bi waxee ñu ubbi kees yëpp xam nga loolu war woon am débat mais

vous faites que vous avez fait le travail de l'église, les Sénégalais savent ce qu'ils ont. Vous avez fait que nous puissions sortir ici. Personne ne doit faire des élections qui nous contestent. Vous avez encore des Alors que ce que nous vous événements, activités, événement, activité, c'est prévu par la loi, c'est prévu dans le cadre de ces travaux-là. Pourquoi vous avez précipiter, proclamer pays 17 h interrompre l'activité c'est prévu comme activité de vérification du gouvernement interrompre ko refuser pour précipiter une proclamation tey à 17h alors que mon na dem suba à minuit donc nous lépp di wane rek ci li nga xam ni moom la état bi nekk di wane commande bi nga ni la état bi pour mën rapprocher de la majorité parce que quel que soit Alpha du am 83 députés même ñoom s'en chiffre yi ñu gagne pour jëm direction boobu joxu leen 83 mais nous nous confisquer le suffrage des Sénégalais nous utiliser la commission nationale pour confisquer le suffrage des Sénégalais que nous mënul comprendre le Sénégal ce que la loi moo permettre ñii war encadrer permettre à l'opposition permettre à toutes les coalitions la loi bi ñu mën comprendre ñi de violer cette loi

base bi nga xamni mom la ñuy sukkandiku pour publier base bobu ngay vérifier donc man lima ma ëppal moy li nekk ci caisse gi ñom ñu xam ko té ñun xamuñu ko loolu moo la amal njëriñ est-ce que loolu nekk ci caisse gogu deug la wala du deug baax na wala baxul kuy vérifier fofu nga jëm donc man lima yor amul ma njëriñ trop lima ma amal njëriñ mooy kees yooyu ñu tej lan mo fa nekk et à partir de quoi la ñu totaliser est-ce que baax na moo tax ñu leen ubbi leen question yi. publication yi est-ce que lolu amna amna am am débat. Euh. donc question yi lañu bañu a ubbi. lañu bañ ñu tambal ko bureau par bureau. alors que loi bi encore une fois parce que lepp lu ñu wax nañ ko tek ci yoon dem leen ngeen xol article L 0142 alinéa bu mujj. loi bi daf ñu jox la possibilité tant que travaux yi jeexul ñu mëna consulter documents yi fa nekk yëpp kon tey jii nii.

dara imposer ou pour nous publier à 17h dara dara imposer pour nous accélérer publication parce que gis ngeen ñi fi weesu gars a ay vendredi le doon publier ay minuit voilà un peu avant minuit donc dara obliger ou nous ñu précipiter pourquoi nous donner le délai qu'il faut coalition bi que demandé muy coalition a Askan à ce ubbi question publication, d'autant plus que nous bi fait exercice ci ay irrégularité gis nañ ay bureau de vote yi nga xam ni kenn signé wul président bureau de vote bi signé son secrétaire signé wul assesseur yi signé wul benn représentant de coalition signé wul bi ma gisee loolu benn ci yooyu dama yëkkati feuille bi wan ko le président de la commission dama ko wan mu xool ko parce que lépp lu ñu def day am preuve am na bureau de vote yi nga xam ni loolu gis na ko démb président du bureau de vote bi mooy signé.

activité tant que pareegul nous donne une demande moom amul droit de publier publier les résultats ensuite dembou, wax naa 55 joxe confirmer le parce que chiffre bu a wax ni dang koy teg ci deug confirmer 5,7 millions. mais bu mais dem ci résultat ci proportionnel ni ne que mënul nek tant que réglé wu publier comment peut-il publier alors que même cochon yi gagné ko génnewul quotient yi kenn ko il veut publier ensuite activité événement bi nga c'est prévu mu refuser ko bàyyiwul ñu def ko et il veut publier ensuite il n'est pas tenu par les délais aujourd'hui il veut également publier alors que mën na dem ba suba ngeen forfaiture et pourquoi l'opposition qui a reçu le suffrage des Sénégalais nga xamni intercoalition bi ay 1 million 500 mille voix qui Benno Bokk yakar pourquoi cette intercoalition qui est devant ñu war confisquer son suffrage à travers aujourd'hui une manœuvre yi nga xam ni kenn mënu ko comprendre ni tant que lii loi bi jox ñu accepté wu ko defaluñu ko lu fa génn lu ñu publier le Sénégalais yi xam engagé parce que lu ñu yoon jox joxooñu ko mënoo tey ji leneen ba paré nii engagé lén engagé wu donc lañu xamni dal daal li loi bi jox tay ji ni commission bi refuser nañu ko nee nañu duñu ubbi kees yëpp nee dañuy publier à 17 h alors que affaire on se voit minimum. la français c'est français je voudrais revenir un peu sur ce qui s'est passé tout à l'heure